jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalati leen nag jàmm ba rek ci ay xibaar mu doon ko ke diggi Marius Sagna nekk këpp député nak ci tayji rek mu séti won génn kilifa ko xamné ne daas rañé lol ci lool langu ko politique ak ak dayom fi ci Sénégal mu doon ke di Moustapha Cissé nekkon nak 4e président foofee rek sa assemblée sa mom ko ke di Moustapha Cissé ki nga xamné modi gi di Sagna te député jamono ji dat ke rek demoon fay seetaan yu daat ke rek xoole ba tax na rek moom daan na fa jële sax ak yokkute ndax tax na ko rek ay conseil bu baax a baax saf boobe la rek CEDEAO ak ñaax ko bu baax ak si ne si ne jamono ji moom Guy Marius Sagna daan na ko porté lool foofee rek sa CEDEAO moom kooku di Moustapha Cissé Lo daas say conseil bu baax a baax daas ko tey ñaax nag yàpp ko bu baax a baax sa li nga xamante ne si ne jamono ji moom lay amal foofee sa CEDEAO mu doon kooku di Moustapha Cissé comme quatrième président foofee foofee rek euh, sa euh, CEDEAO mu doon mbir mu am solo lool ndax gi Mari Sagna ji rek Afrique ñëpp das na koy jox loxo ginnaaw rek la nga xamante daan na yënguloon bu baax fa nga xamante ne si ne moo di CEDEAO rek pour Afrique am lekk li nga xamante si ba tax na rek Afrique ñu si bëri bëri joxoon ko loxo ak la nga xamante si ne rek doxoon na fa si kookee xamante ne si ne di gi Mari Sagna mu doon mbir mu am solo kon nag bu dewee ba seeti ki xam ne moo di Moustapha Cissé Lo rek dafa jële ay coosé mu ñàkk se boobele combat leneen la sa a fës mu doon premier ministre ba di Ousmane Sonko njiital Pastef le patriote du Sénégal nag si moom nag mën na ne jamono ji rek ma ngay dagga def li nga xam ne moo di première génnam daanaka rek daat na yàggo lool afaa muy génn rek fi xamante si moo di réewum Sénégal waaye nag tey jii ñu nemmeeku ko rek mu daati dem foofee sa Kigali si réewum Rwanda moom kookee di rek président Ousmane Sonko di fa dem fekk si pression seulement moom ko di Ousmane Sonko si ki xamante si ba fa nekkoon tan joxaat ka rek ak beneen yoon rek réew moom mu war fa dem teewe moom kooku di président Ousmane Sonko